xamantene mom moy euh, manam réalisation yi nga xamantene rek mom la le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr fassiyene amal rek ci euh, commune Uyof waye fim ko def sax yakarna naa place bu am solo manam lieu bu am solo la ko fas andi muy centre commercial bi muy rek euh, manam digante rek fi ñuy wax cité nouvelle tambalé ko ouest foire ba ci jëm ci nord foire rek biir Yoff lepp yenen ak yenen yakarna ni centre bi fimu mu placé wu doon emplacement bu baax a baax ngir permettre rek euh, manam ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci zone yoyu dootu ñu amati ben jafé jafé ci walu njënd ak njaay loolee nag muy centre commercial bobu ñu fassiyene def pose première pierre bi tey jii nii ci samedi ji 30 décembre 2017 loolu nak mi ngi fassiyene am ci téwayu mom ci bopam di monsieur le ministre maire Abdoulaye Diouf sar moom nag moom moo ko fas yéene rek euh, présider muy lu am solo waaye jàpp leen ne nag centre bi ñu ngi ko fas yéene euh, defar rek euh, maanaam lëkkaloo la daal commune bu yoof moom moo ci ànd rek ak société bu ñuy wax Munif groupe ki nga xamante ne moom moo jiite société boobu société boobu ki ko jiite di rek monsieur Tahirou Sarr kon moom la ci commune bu Yoff àndal rek ngir fas yéene amal loolee di centre commercial bi xam naa rek dañuy daal di taaxir tuuti rek dugg si biir xool emplacement beeg naka lañ ko defee rek euh, ki nga xamantene mom moy mooy euh, jawrin ji le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr di daal di teew yegg rek euh, fasiyene nak présider cérémonie bu am solo bi muy pose première pierre bu centre commercial Chérif Ousseynou Laye xamna naa dañuy taaxeelu touti dugg ci bi rek en attendant gani di placer et tout ak mom ci bopam mu amal cérémonie bu am solo bi nga xamantene ñu ko don xaar bobu ba légui waye dina len may touti ngeen japp rek ni xamna travaux yi di fas yéenee tàmbali nag ci wéro janvier bi inshallah allah bu dee rek euh, niñ ko bëggé non la euh, amee rek euh, bu boba ñu daal di tàmbali liggéey bi rek waye jàpp rek pose première pierre bi mom tay ji lañ ko fas amal samedi 30 décembre 2017 kon gars ba ci kanam rek ñu dugg ci biir en attendant mom le ministre maire daal di yegg rek ñu amal cérémonie bi kon ci kanam. leen ni ma leen ko waxee rek en attendant ñuy xaarandi teewaayu jawriñ ji maanaam le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne moo war président cérémonie bi dañu dal di jox kàddu bi rek ñi nga xamantene ñom ñoy mhm. autorité yi tok fi na fasiyene ko téwé dañ koy tambali nak ci autorité coutumière yi nga xamantene ño nek bir yof kenn ci ñom di saltigué Mamadou Meng mom kenn dootu ko présenté ma bayiko ko bi rek mu nuyo ak askan bi wax ñu lu waral téwayam tay ci bés bi. waaw ma lay nuyu di nuyu ñi fi téw ñep di wax né suñu teewaay tay moy le monsieur le ministre bëgg a def centre commercial ànd ak suñu mbokk bu ñuy wax Tahirou Sarr muy acte bu rafet di ñëw fi en tant que autorité coutumière di saltige Yoff ñëwaat fi en tant que coordinateur du mouvement ànd taxaw Yoff ah di rafetlu li nga xam ne ministre bi mu ngi koy def ci commune bi bari na projet yu fi jàlle yoo xam ne vraiment taxawaay bu rafet a rafet la ala wati mu ñëwaat di defaat centre commercial bi sunu man en tant que lu rafetlu démarche yi nga xam ne bi mu jëlee commune bi bu léegi mu ngi koy def di ko ñaanal yàlla lii mu mébét ci commune bi yëpp ànd ak ak le président Macky Sall yàlla nag yàlla mottali ñun ñëpp ñu fekk yëpp waaw saltige maa ngi lay jaajëfal keneen ci autorité coutumière yi jaraaf Doudou Mbengue dama koy bàyyee kàddu gi mu wax ñu tamit nuyoo wax ñu teewaayam ci bés bi ak naka la ko dundee. waaw sama teewaay fii ci euh, place bi mooy euh, teraanga ji ñu Abdoulaye Diouf Sarr defal di ministre maire de Yoff di biisu boo rafet boo xamante ne bi bon euh, lu mu ci ayib la te li ma ci gën a neex sax mooy sama sëriñ bi ñu ko tuddee muy u seenu Lay kooku bu doon kilo sax la may dem kon nag maa ngi ñaan suñu borom projet yi nga xamante ne ni moom la fi natt instauré yàlla na ko fi yàlla jàppale yàlla nañu yàlla jàppale ñun ñëpp te yàlla def dëkk bi ñuy benn yàlla nañu yàlla musal si musiba saytaan ak bala musal ñu si kasara gàtt fa nag deegu ñaaw yéen tamit yàlla jàppale ba balaa déwén ngeen yor seen chaîne de télévision bu wóor bu baax bu ci mu ci ayib ci àdduna barkeem salaal salaam jërëjëf. kontaan nga ci ñu indi ay infrastructure fi nga xamante ne moom mooy commune bu Yoff ñu ko doon wax village traditionnel. waaw man su ma yeboo sax dama naan commune de Yoff mooy commune bi nga xam ne moo gën ci àdduna waxuma la Sénégal mais àdduna parce que Diouf Sarr bi mu fi nekkeek léegi def réaliser, li réaliser réalisé Bon, ko réalisé bo Sénégal réalisé fi parce que li euh, kilifa yi den wax rek wéddi bokku ci ñun inventé ñu di wax Nous gis motax ñuy wax bu ñu gisul duñu wax kon ko euh, président de la république son excellence maître euh, monsieur Abdoulaye monsieur Macky Sall y a le lafal len te lepp luñu sentu rek yalla ci Assane Jaraaf maa ngi lay jaajëfal ba tey keneen ci autorité yi ma bàyyi ko mu présenté wu wax ñu tur bi naka ak lan nga représenté biir Yoff. waaw maa ngi El Hadj Ngaye Ndiaye di président Magu Yoff ci conseil des notables. kon président sa teewaay ci bés bi dafay nekk lu am solo ma lay laaj rek noo koy dundee lan moo ci say impression si li nga xamante ne moom la seen ministre maire war a def. waa ni ñu koy dundee mooy déjà euh, li ñu fi indi muy pose première pierre bi ñuy ñaan yàlla yàlla sottale ko ci jàmm ndaxte le maire là moo ñu envoyé carte invitation pour pose première pierre bi et engagement bi mu jëloon muy def yoof structure yoo xamante ne sur le plan économique dina fi am njariñ alors loola ñu koy rafetlu def na fi quai pêche

dafa wane ne kon uh, indi na fi innovation ci yof doomu yof dootu ñu dootuñu jooyati xana ay infrastructure innovation c'est-à-dire dafa nek lu bees lo xamne da ko fi indi dal doomu yof Yoff jooyatuñu infrastructure dal wa wa justement parce que euh doomu yof jité na fi mais nak malheureusement doomu Yoff yu jiite woon amuñu won possibilité yi nga xamantene mom la am alors comme yalla dogal na alors mu xéewal ñu ku mel ni moom alors yàlla dogal aussi mu am autorité bi mu am maanaam pouvoir yi mu am nekk maire nekk ministre alors euh, bokk ci parti bi nga xamante ne ñoom ñoo jiite réew mi alors loolu muy opportunité boo xamante ne ma heureusement et ñu ngi ci sant suñu borom aussi ñu ngi ci profité et ni ñu mën a am nag li ci mën a doon rek ñu xam ne

ak ñeneen ñoo maintenir alors dinañu am posture bu melni alors mën a jàppale environ dëkk bi commune bi alors si yu demee ni des actions économiques ah des structures yoo xamantene alors warna naa contribuer au développement économique alors de la zone hein c'est-à-dire de la commune. Masha'Allah, macha merci. mu bàyyi kàddu gi ak beneen autorité rek mu présenté wu wax ñu tur bi naka la ak teewaayam ci bés bi nan la ko dundee. Euh, maam Ousmane Mbengue laa tudd maay président Frayof génération 52 56 et li ñu gisee affaire bi xanaa rafetlu ko rek hmm, comme maire bi lu mu gàddu jéem a indi ci dëkk bi. ah fu mu ñu oy taxaw ci wetam pour jàppale ko pour njariñu yoof parce que fra yoof loolu rek moo ko tax a jóg liggéeyal yoof ko jóg képp kuy liggéeyal yoof ñu ngi sa boor ànd ak yow def ci liñ ci mën boobu impression lañ ci am bu ci beneen daal euh, gis nga ni yoof waratul nekkatul commune buy jooy li infrastructure wala ak allah yim def lu am solo waaw euh, maire ah dañu japp ñun ñëpp rek eh, mu gëna jëm kanam li ñu am ci ay projet euh buñu andé le lekkolo japp ci ñun ñëpp projet yi mëna sorti pour ñari ñu yof ak wa yof ak commune bi yëpp du manière générale kon ma ngi lay jaajëfal merci assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ah ñu ngi sante yalla suñu borom subhanahu wa taala diko ñaan at mu bes ni ñu dugg yalla nañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim gën ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi te une bonne et heureuse année képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo ci réewum Sénégal particulièrement waa Yoff góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ah suñu teewaay fii tey li ko waral rek mooy mm, accompagner suñu maire le premier magistrat de la ville monsieur Abdoulaye Diouf Sarr yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko atu naataange jubbale ko ak président de la république son excellence Macky Sall mais di ziar di ñaanal Baye Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes mu yàgg te lépp lu mu yéene ci ëttu maamam bi yàlla na ko yàlla defal li ñu fi teewal nag centre commercial boo xamante ne en partenariat mairie bi ak groupe MUNIF ñuy def pose première pierre tudde ko Chérif Ousseynou Laye muy docteuru jeunesse bi di sa doomu Seydina Limaamu sëtu di sëtu Seydina Limaamu doomu Seydina Issa yàlla na tur yu boroom centre commercial bi yàlla nañu ko tàmbali ci alhamdulilah ibrahim jël ki allahumma salli ala sayyidina wa sallim nëgën ni daaw ñu ngi ànd ak maire di inauguré complexe njëw tey ñu teg pose première pierre chantier yi mu def ci yoof yëpp yàlla na ko yàlla mottali ñu ngi sant képp kuy yeewoo yoof ak kuréel goo mën a bokk mag ñi jàmbur yi frais yi góor ñi jigéen ñi imaam yi délégué de quartier yi ak borom bu tànk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp allahumma salli ala sayyidina wa sallim. ñu ba tey ak beneen président Freyov ma bàyyi ko kàddu gi rek mu wax ñu lu waral teewaayam ci bés ak naka la ko dundee. waaw maa ngi lay remercier bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier d'abord monsieur le maire ak ay collaborateurs am ak ñi nga xamante ne ñoo am initiative euh, implanté fi lu demee noonu ci dëkk bi. parce que ñun nous ne pouvons que nous en parce que li ñuy ñaan suñu bopp mooy avancement te képp koo xamante yaa ngi porté avancement si dëkk bi rek suñu satisfaction donc tey suñu teewaay foofu lañ koy teg di wane ni. dañu kontaan si li nga xamante ne si lañ ñu woo parce que ñun lenn rek moo ñu intéressé mooy njariñu Yoff képp kuy doxal lépp loo xam ne mooy nekk njariñu Yoff rek ànd nañoo ak yow loolu mooy suñu gis nga gis nga ni euh, monsieur le ministre maire wàllu mi ngi siy dox fii si Yoff ni wàllu émergence bu baax fii si Yoff waaw mu ngi mais loo gis rek dafa am yoon loo gis dafa am yoon waroon nañ dépassé fi ñu donc war yaakaar naa ne war nañu war nañu revoiraat système bi tuuti waaw loolu c'est mon avis c'est mon avis à moi kon maa ngi lay jaajëfal merci instant bi nag ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur Ousseynou Diom moom tam xam naa kenn dootu leen ko présenté moom relation wam ak le monsieur le maire waaye relation wam ak doomu Yoff yi dama koy bàyyi ak micro bi moom tam mu wax ñu impression wam ci journée bi. je crois bien que eh, ne eh, Massan leen ko wax et maa ngi leen koy waxaat lii mooy Yoff mais amuñu kenn ku dul suñu ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr rek lañ am. donc lii commencement la rek fa mu jëmee Yoff mooy fa mu waxoon rek mu ngi koy fay yóbbu quoi ñu di ko remercier waat encore une fois parce que euh, tey je crois bien que ne li fi juddu ci ay ci ay structure ay Yoff mais mas fi am donc mu ngi def mu ngi def lu man euh, nit ñi gis nañ ko mais lu ñuy làmb ak lu ñuy laam-laamee du benn quoi voilà kon daaw monsieur le maire def na fi lu kenn musul def dafa mel def na fi lu kenn masul def teg na fi fi kenn masul teg alors je crois bien que ne Yoff ba mu ñëpp war nañ mën a topp si ginnaawam puus ko mu dem mais en tout cas ñun moom lañ am mais ba koroog muy ba koroog géej gi fer quoi moom la ñu àndal moom la ñu dañ koy gunge. on vous remercie. nag ñu ngi ak waa kër euh, monsieur le maire moom conseil municipal la yaakaar naa gunge ki nga xamante ne mooy seen maire li nga xamante ne moom la def ni ngeen koy gunge si yeneen yeneen réalisation ma bàyyi la rek nga nuyoo wax ñu tur bi naka la ak euh, noo jàngatee mbir bi rek. salaamaaleykum waa yow euh, maa ngi tudd Pape Djibi Diène du conseil municipal Menguer quartier Menguer.

bëri na ay réalisation yu fi am yoo xam ne jógewul si jógewul si budget bi moom mooy dem jëli ko andi dugg te loolu lañ doon wut si maire parce que liy jóge ci commune bi mënul defar commune bi donc il faut ñuy dem di jëli feneen di andi te vraiment mi ngi si dynamique boobu depuis mu nekk ba léegi quoi vraiment ñuy saluer euh, acte yooyu muy muy posé quoi. ba tey dinaa la laaj euh, lu yàggul dara ngeen euh, voté seen budget kon lii muy mooy waa Néné xanaa yéen seen budget askan bi duñ leen ci mere de ndax dafa mel ni fi ngeen ko war a dogal fa ngeen koy dugal. non non loolu moom vraiment ñun suñu xel daal na si quoi fii ay yow parce que boo gisee jëluma vote budget bi ni mu demee nga xam ne donc vraiment suñu xel daal na quoi amul couleur parti amul dara toog nañu waxtaan ensemble.

ni cérémonie bi nag kenn desu si ah, autorité yeeg coutumière administrative ñëpp a fi toog instant bi ñu ngi toog sax ak ci autorité religieuse yi yaakaar naa Serigne Baba Sow ah. moom tam dama koy bàyyi mu nuyoo wax ñu teewaayam ci journée bi rek ak nu mu ko ndax yaakaar naa bismillahi rahmaani rahim taala wa barakaatu euh, ñu ngi am mbégte ñëw teew tey fii en tant kenn ci kilifa diine ci commune bi di dëkkee ci Nord Foire Euh, ñëw su invitation monsieur le maire premier magistrat commune bi di Abdoulaye Diouf Sarr euh, ci événement bu important bi nga xam ne ñu ngi koy def fii yëpp mu dellu ci action yu baax yi nga xam ne mu ngi koy def ci commune bi ak yéene bi mu am ci commune tabax fi centre commercial muy loo xam ne day méngoog émergence yi nga xam ne moom la président de la république di woote euh, loolu wax dëgg yàlla lu ñu war a encourager la

bàyyi na fa trace su liggéeykat bàyyi na fa trace boo xam ne ñëpp gërëm nañ ko fa euh, loolu nag suñu mbégte la ndax moom suñu njaboot la fii ci biir commune bi tabaarakàlla merci ba tey ñu ngi toog ak euh, beneen conseillère municipal di wuyoo ci turu Adja Sën Diop moom tamit ñu bàyyi ko kàddu gi rek mu wax ñu teewaayam ci bés bi ak li seen maire def naka la ko dundee. waaw ni ma ko dundee mooy maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di rafetlu lii tamit. parce que vraiment li ma ko dundee mooy bëgg rek ci initiative bi ak lii parce que yoof moom ñun yoof rek ñu am donc monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr ñu koy gërëm bu baax di ko encouragé ci lii muy def nii parce que lii vraiment yoof yëpp la ko defal ñun yoof la am kon ñu koy ñaan yàlla ko yàlla mottali ñu dund ba di ko inauguré ci kàttanu suñu borom kon mel na ni monsieur le ministre maire di seen njiit moom askanu yo mere wuñ ko de waaye président de la république tam mere wu ko ndax dafa mel ni mi ngi dox ci wàllu émergence. waaw président de la république mere wu ko parce que ñàkk mere moo tax mu dénk ko li mu ko dénk te macha allah mi ngi ciy bay waaram dañu ñaan kay yàlla lépp oyof yàlla may ko ci ndam vraiment ba Macky Sall mi nga xam ne am mu am wóolu de dénk ko li mu ko dénk. mu yàlla jàppale ko ci daal loolu lay ñaan yàlla bu baax ma di ko rafet lu baax di ko gën a encouragé. merci maa ngi lay jaajëfal. ba tey ñu ngi ak beneen soxna boo xamante moom moo représenté les femmes du département de Dakar ah moom nga représenté dama koy bàyyi rek mu nuyoo wax ñu teewaayam ci bés yow yaa représenté les femmes de département de Dakar d'accord kon dama jox la kàddu bi rek nga wax ñu luy sa teewaay ci bés bi tey. comme nous ma ko nous ñun ñoo représenter les femmes du département de Dakar ci événement bi nga xam ne am muy pose de la première pierre bi complexe bi ci bëgg def à ce titre ñun dañ ci taxawee ñaari taxawaay ñëw ci commune bi nga xam ne moom ak département Dakar ci la bokk Nous fi ci di lo le ministre Ablaye Diouf Sarr muy suñu responsable ñun le département Dakar di ñëw di ci taxaw di ci Moi, ligue bi mobilisation bi fait. fi te itam Yoff donne le roi ci département Dakar loolu le ministre appelait Diouf Sar kota. voilà l'homme mo ñu fi indi merci. merci beaucoup c'est madame Ba euh, je suis l'assistante au niveau de l'administration du parti APR. Je suis le maire un homme de principe un homme qui réussit parce que si koy xool dans les 19 communes du département de Dakar il a toujours gagné c'est un gars à soutenir c'est un gars à encourager C'est lui mu c'est une porte pour Ngor Yoff et toutes les autres communes parce que c'est de l'emploi pour la jeunesse

no. les amazones de Diouf Sarr yéen it merci beaucoup. ngeen comme le euh, centre commercial bi euh, commune bu Yoff daf ci en partenariat la euh, société bi ñuy wax Munif Group. ki ko jiite di monsieur Tahirou Sarr à hein? instant bi ñu ngi le ak PDG bu société bi dama koy bàyyi rek mu nuyoo présenté wu wax ñu tur bi la. bonjour man maay Pape Diop bu Munif Group, man maa représenté. Eh, Tahirou Rosar, bi promoteur bi di PDG wu Munif Group euh, tey jii dañu ñëw fii ak euh, partenariat ak maire yi Yoff euh, pour liggéey pour commune Yoff bi maanaam euh, def fi loo xam ni euh, dina am njëriñ pour habitants wu Yoff mooy maanaam sant commercial bi nga xam ni moom la ñu fas yéene tabax tuddee ko euh, Serigne Ousseynou Laye. kon monsieur Pape Diop ma lay laaj rek partenariat bi naka la demee ndax difficile woon na wala. non difficile parce que partenariat bi de l'instant où mairie bi ànd na ak ñun maire Diouf Sarr ànd na ak ñun yëpp dafa daal di yomb. Euh, partenariat difficile moy partenaires yo xam amo ño andal. way yof suñu fa lañ dëkk fa la dëkk euh, bis mu nek mu def lo way yof dañ ci partenariat bi fay yomb parce que mairie accompagner au quotidien te yaakaar nañu bu partenariat bi continuer bu andando bi continuer di mëna def sax leneen commercial est-ce que vous avez ñu wax de naka ngeen une perspective ngeen rek centre commercial Oui, au centre commercial bi lañ ko de première paire. mais li ma parce que du parce que je suis ba mu ba mu ba ñu pour mais R plus 1 plus terrasse magasin showroom dina am ay boutique dina am ay restaurant dina am ay terrain football ay aire de jeu pour xalé yi manam lo xamni dal daal habitants euh, euh, habitant wu lay don APEXI 1 APEXI 2.

kon euh, ñu ngi lay jaajëfal merci dégg ngeen ko rek mu nekk kàddu PDG bu société bi nga xamante ne moom moo nekk en partenariat ak euh, commune bu Yoff ngir amal li nga xam ne nag moom mooy centre commercial bi monsieur Pape Diouf kon merci en attendant rek euh, ñu daal di xaarandi l'arrivée du ministre maire mi nga xamante ne moo fas yéene présider cérémonie bi muy Abdoulaye Diouf Sarr kon léegi léegi. on waa kër Adja Binta Ndir waa kër Yapende Diène kontaan nañ ci yéen ñëpp.

loolu nag bu ñu yàlla mayee ñu am maire bu mel ni Abdoulaye Diouf Sarr nga xam ne lépp lu baax rek daf koy xalaat pour développer commune yoof loolu dafa nekk sant yàlla Yoff bi muy Yoff ba tey mosuñu am sant commercial bu toll nii wala bu demee nii ak euh, promoteur bu am solo bi nga xam ne xalaat na ne dina ci def dooleem kon lii buñ ko amee ci commune bi yaakaar naa kenn ku ne daf ci war a sant yàlla waaye kuñ ci war a njëkk gërëm mooy premier magistrat de la commune di suñu maire bi nga xam ne ah yaakaar naa kuy kilifa ci yoof te nga ñeme dëgg xam nga ni juumuñu ci kuñ ko tànne kon monsieur le maire wax dëgg yàlla ñu bokk def ndoor ñaan ci tuuri kilifa diine yi fi toog yépp ma wutu leen fi ah, njabootu Seydina Limaamu gi jiite ko ndax ah, gis naa fi ay doomu xalif général des Layènes actuel ak ki passé yeb di suñu mamran kon ñu bokk jang fatihatul kitab eh, tek ci salatul fatihi wala salatu bu way man ñu wax ya latif juróom ñent yoon ñaan yalla li mu gaaw lool bala ñuy wax juróom-benn wer ñu inaugurer ko bi jahi nabi sallallahu alaihi sallam bismillah ñaanalale yit kelifa yi fi tok yalla guddal sen fan ba ñu ko te ko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 jërëjëf merci beaucoup donc ñu may monsieur le maire monsieur le ministre accompagné de monsieur Pape Diop qui représente ici présentement notre ami Tahirou Sar bi nga xamé ni mom mo am idée bi moo am xel bi ni kat dama fi implanté ben centre commercial bo xamé ni centre commercial de dernière génération te bu mako ko implanté amul kenn ko xamé ni mom lay teg ci loxom mom lay mu sama xarit sama camarade sama doomu ndey mu le maire le ministre Abdoulaye Diouf monsieur le ministre donc pour 5 minutes vous allez effectuer la pose de la première pierre fële ak euh, monsieur Pape Diop Galaas président ñi au ci aux premières loges nañu ànd ak yow ñu très rapidement ñu donc monsieur le maire tu vas aller de l'autre côté pour.

Pap, pap. Okay. I'm an ambiance like that as well. Demal, demal, demal. Hey, I want to

moo defar réew. waaw waxuma loolu rek. yow Sarr yow Sarr. am nañu sant. waaw waxuñu ko. yow duñ defar di gën a yomb. waaw. Abdoulaye bâtisseur. bâtisseur. bâtisseur. Le bâtisseur. C'est bon, pape, pape, pape, c'est bon. Monsieur Inauguré, s'il te plaît. Monsieur Inauguré. Ok, c'est bon, voilà. Euh, j'aimerais d'abord euh, féliciter euh, très sérieusement le groupe euh, aujourd'hui a contribué avec euh, la commune de avec le partenariat Un investissement extrêmement important, un investissement qui va structurer la commune. Il s'agit de la réalisation d'un centre commercial de dernière génération, baptisé au nom effectivement de ce Laï. qui est de, par le monde, qui euh, avait beaucoup investi euh, dans la jeunesse et qui était l'ambassadeur tous les temps pour l'agence. Ce centre commercial sera donc euh, un centre commercial de dernière génération, je l'ai dit, pour permettre effectivement à York d'être un véritable carrefour d'échange. Vous savez que Yop, c'est le pays de Sénat Moulaye. Aujourd'hui, avec euh, ce centre commercial baptisé au nom de Sénat Moulay, L'offre euh, va effectivement être très présent euh, dans ce que le poète a appelé le rendez-vous de l'oreille pour savoir Parce qu'il s'agira effectivement ici de faire venir euh, des flux, des flux importants qui vont développer l'économie locale. Nous remercions donc euh, toutes les populations de Yoff. Vous avez vu aujourd'hui que tous les dignitaires sont là, les chefs religieux sont là, les jeunes sont là, mais toutes les forces vives de Yoff sont là. pour Assister effectivement à ce développement Naturellement, ce projet-là est un projet de Yoff, qui est un projet endogène. Parce que le promoteur est de Yoff, la commune qui l'accompagne est de Yoff, le partenariat public-privé est un partenariat public-privé totalement Yoffois. Donc euh, à 100%, ce qui vont travailler ici dans le centre commercial sur les jeunes Monsieur, le maire, monsieur le maire, déjà j'ai deux questions. Est-ce que ce centre commercial ne va pas tuer ces petits marchés un peu qui tournent autour de la commune Et la deuxième question est de savoir le montant de cet investissement et la durée d'exécution. Tout à fait. Je crois que M. Diop tout à l'heure euh, sera plus à même de donner effectivement des précisions sur euh, la structure technique du projet et sur le délai de réalisation. Ce que je peux vous dire euh, tout de par rapport à votre première préoccupation, euh, c'est que c'est être de courte vue et ne pas comprendre ce qu'est le circuit économique que de croire que effectivement un centre commercial effectivement les plus L'économie effectivement fonctionne dans euh, une synergie d'ensemble. Et il y a un réseau de distribution qui part du grossiste jusqu'au détaillant. Et je crois que ce circuit de distribution-là est tout à fait cohérent et le centre commercial fait partie du circuit de distribution. Donc il n'y a pas péril à la demeure. Tout, euh, tous les acteurs ont leur place dans le circuit global de l'économie. Et je crois que ici à Yoff, nous voyons que le PS e local est véritablement en route.

yaakaar naa ne ku ñëw dans le fil de Seydina Limamou Laye def euh, lu mel ni ci dëgg Jérusalem laay wàcc day wane ne effectivement Yoff désormais dana nekk effectivement parmi les capitales yi xamante ne ñoo gën fës si wàllu économie locale

Monsieur, est-ce que vous pouvez... Euh, des études euh, on va dire, quelques semaines. Mais ce que je peux vous dire, c'est déjà, euh, comme l'a dit le ministre, un euh, centre commercial de dernière génération euh, sur trois niveaux, avec des boutiques, des showrooms, des aires de jeu, des, surfaces de, restauration. Je pense que pour la commune de Lof, c'est bienvenu. Et d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir plein d'avantages pour la commune de Lof. Bah, il faudrait déjà terminer les études. je je vois que vous êtes vraiment accrochés euh, accroché au coup, mais ce que je peux vous dire, c'est d'abord le plus important, comme l'a dit le ministre, c'est qu'au niveau des emplois, la priorité évidemment sera donnée aux habitants et aux jeunes d'ailleurs. Mais on aimerait savoir au moins la durée d'exécution pour la population. Maintenant, euh, vous savez que nous, en tant qu'entrepreneurs, euh, les travaux, ont juste une euh, estimation. On prévoit six mois, avec peut-être un dépassement d'un mois, mais je pense que dans les une enveloppe d'environ. Oh, vous tenez à la page. Hein. Je ne peux pas vous le dire tant que les études ne sont pas terminées. Mais euh, nous ferons la communication au maire euh, dans les prochains jours, qui vous donnera, qui fera aussi, aussi une communication pour donner les, indications nécessaires quant au coût du projet, au délai de réalisation et à la structure même du projet. Alors tu vois, projet bi ñaata ñaata débat bi ñaata weer lay def Euh, projet bi ñi ngi yaakaar ni mi ngi démarré tey jii lañ posé posé première pierre bi mi ngi war a tàmbali euh, liggéey bi à de euh, la la fin des fêtes fête yi jeexee architecte yaa ngi fi. jamono liggéey damay liggéey. bi dina gaaw te yaakaar nañu si li ñu bëgg ñoo eggale ko si juróom-benn incha allah mais xëy na juróom-ñaari juróom-ñaari weer. Pour a ça dépend parce que comme ni ma wax sànq euh, dina am ay magasin dina ay de jeu dina am euh, ñu bëgg def ay ay ay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 Khalif général des Layène Alaaji Baye, Abdoulaye Thiaw Khalif, xalif yàlla fi yag te ànd ak di yegg ci nuyoo boobu di ko ci loxo Serigne Moussa mu tegal ñu ci loxo mu tek ko ci loxo Khalif général yi ci Sénégal yépp ah di nuyu particulièrement monsieur le ministre monsieur le maire Abdoulaye Moussa di suñu doom di suñu jarba di suñu xarit de profiter ci occasion bi souhaiter à tous les Sénégalais une bonne et heureuse année 2018 at maa ngi jeex ñu tous qui sant suñu borom ak mi ñuy dugg yàlla nañu ci dugg ci rahmaani rabbil alamin damay def benn remarque mooy daaw le 31 décembre son excellent chef de l'État, Macky Sall président de la république nous nous nuyu diko sante diko ndokel ci xew-xew yeb ci inauguration aéroport Jasbi di ñaan yalla aéroport bobu jàmm ji amone fi ci Seydina Limam muy aéroport Léopold Sédar Senghor ba benn toj-toj amu fi benn amu fi aéroport bi à côté jas yàlla na ko yàlla may muslaay googu ci barke Seydina bi at mi jeex le 31 décembre nous avons fait fële place une place mythique monsieur le ministre di inauguré complexe Njëw Nous avons ñu ñooñ fekk nañ ko fekk nañ ko le 31 décembre 2017 avons posé la première pierre complexe de dernière génération ku gis maquette la première pierre ànd ak xaritam suñu mbokk ñu ñëpp ñu fi teew muy Tahirou Sarr di patron Munif Group ñu posé pierre bi léegi nii muy un grand pas ci biir partenariat public privé muy PPP Sénégal émergent mooy lii ku bëgg a émerger da ngay liggéey ngir ëllëg monsieur le maire ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm kaddu yi ma yëkki nag maa ngi yëkki ci baatu kuti mu yoof borom dombu tànk yaa ngi ci kaw jaraaf yi ndey ji réew président Jambour président Magou Yoff président Frey Yoff ñu ngi leen di de di leen sant seen baat lañ ko yëkkee ak population Yoff yëpp waaye nag li fi projet boo xamante ne dañ ko mais projet commune bi yëpp la virage ba jàmmalaay géej ba lazare commune d'arrondissement Yoff Ablaye Diouf Nyep, ñëpp xam nañ ne mu ngi taxaw di liggéey am solo ci biir commune bi man day Ouest Foire yéwo. talibaa nga foofu am na yeneen projet yuy ñëw jàmmalaay pareil faneen pareil kon nag commune bi benn commune la maire bi benn maire la ñu ngi koy sant di ko gërëm yoof nag dafa am particularité dëkku diine la naa Limaamu fii la tëdd ak njabootam complexe bi bu ñu ko jëlee di ko tudd ku mel ni Chérif nu laay muy docteuru jeunesse bi liggéey lu bari ci atu maamam ma ne complexe bi yàlla na jël bayre bi taar gi yiiw gi nangu gi di wërmati Seydina Mouhamad ah ñu sante ñëpp maire sa xel war na dal da nga nekk maire commune d'arrondissement yoof ñun ñëpp ñu jël suñuy voix jox la te amuñu ci benn rëccu boobu ba léegi ngay posé ay acte ñu ko gis ànd ak gouvernement bi ànd ak président Macky Sall fi nga jaar ci ministère yëpp bàyyi nga fa say empreinte waaye ministère bi nga yor mi ministère de la santé muy ministre ministère bu transversal Diego, yi nga fi commencé def ñu ngi suivre nañ gestion budgétaire bi ñu ngi lay suivre ci biir réew mi na sa ndam vous may le président Vous yoof day commune bi laay wax bu projet yu bari initié commune bi a yanka koy gis yaa ngi di ñoom di rendre projet extension sant de santé Philippe Maguilène sengoor bi muy jullukaay bi muy place su njëw bi muy faneen ak faneen ak faneen kon soo toogee coutume bi yëpp ñoo toog sa gannaaw xel mën na dal Yoff lii la am Tunduriye mu ngi fi Ouest Foire mu ngi fi Mbengeen a ngi fi Est Foire a ngi fi ñëpp a ngi fi kon ñu sant yàlla bu baax duñu guddal ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla jubalal ak président Macky Sall président aussi li mu sumba ci réew mi mu mottali ko ñu ndey yaay suñu tiita yaay suñu peccangal yaa ñu toogal fa ñuy seddoo te ñu ngi lay léppaloo am jànq xëcc ci ko fii fàttewloo sa baas fàttewloo ñi la élire yàlla bu la yàlla fàtte allahuma salli ala sayyidina bi liggéey naa rafet na fii yëpp ñun mën nañ ko constater mën nañ ko répéter mën nañ ko wax depuis ban la falee ba léegi monsieur le maire sa priorité mooy investir ku ñëw yoof xam ni l'image yoof a radicalement changé li nga def mën nañ ko bindaat encore wax ko aujourd'hui nga woo ñëpp ni leen tey jii dafa am un partenaire boo xamee ni mu bëgg investir tabax benn commercial boo xamee ni de dernière génération la te man la ko tuddee man la ko man la jiital ba pare tuddee ko feu Chérif Ousseynou Laye loolu moo tax ñuy ji la famille de feu Chérif Ousseynou Laye Laye Mamor moom la ñuy woo tey jii mu mu wax au nom de la famille feu Chérif Ousseynou Laye moom mi nga xamee ni moom la ñuy tuddee centre commercial bi nga xamee ni moom la tey Sarr bëgg tabax fii si Ouest Foire ñoo ngi woo sang bi Mamour Laye pour mu ñëw sang si الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالم سيدنا ونبينا وإمامنا المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعلى علي وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين نغي يكتي سنو كادو تي ترو سنو كليفة موي سرين جالاي مي جيتة تلقاسيون بي تاو في تاي تي جوخال اي بار يجوغي تي خليفة بي اك فامي سيدنا لما مو ñu ngi sant yàlla bu baax di yëkkati ay baati cant di ko teg ci loxo ministre Abdoulaye Diouf di sant yàlla ci moom di xamal ni sama taxawaay fii mënoon na boole li ko yàlla jox ministre maire ak sama bos wax ci turu kër gi ndax yàlla moo ko defal loolu kon Ablaye ñu ngi lay nuyu di nuyu ilimaan yi fi nekk yëpp di nuyu borom ndombay tànk yoo fi yëpp di leen andil nuyoo ahlu bayti Seydina Limaamu yëpp di nuyu Tayru Saar di andi nuyoo bu jóge ci xalifa bi ak famille Seydina Limaamu yëpp di ko teg ci loxo Tayru Saar di xamal Ablaay Tayru Saar lii mu def jëf la ju muy wane mais jëf ji ne ci suuf mu koy def ci kër Seydina Limaamu ak ci yoof ñépp xam nañu yàlla na ko yàlla fay li tax mu koy def ci waa kër Seydina Limaamu ak ci waa yoof yépp yàlla mi ko fi andi yàlla juumul ndax lu xew lu ne yàlla moo ko dogal te yàlla moo dogal mu ñëw ci kippaaru Seydina Limaamu yàlla may ko fa makaan mu jël boppam def ko ci biir njabootu Seydina Limaamu ak ci biir yoof jël alalam bokk ko ak ñoom kon ci turu xalifa bi ak njaboot gi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla jëf ji mu jëf nag ci Serif Ousseynou Laay di doomu Seydina Issa Seydina Issa di doomu imaamul mahdiyul muntazar nekk fii ci yoof dëkk fii ci yoof di seen mbokk def na jëf joo xamante ni ni jëf ju rafet la ndax sërif Ousseynou Laay lépp lu ko nit tudde loola laayeen yëpp nga ko tuddee julit yëpp nga ko tuddee ndax nit ku baax la woon nit ku yaatu la woon nit ku géné la woon koo xamante ni lépp loo xamante ni yàlla mas na ko ko dénk bokk naa ko ak àdduna bi yëpp kon bu tayru yëkkatee loolu def ko te diggante moom ak Serif Ousseynou Laye di diggante bu wéer moo tayru saar dinaa ci wax lenn rek bi ko yàlla indee fii ci yoof ci biir ja ci euh, jàmmalaay ñëw na ci Serigne Ousseynou lay jaxaso ak mom Serigne Ousseynou lay limu ko denkon rek lay fatali teje ko waxtan bi ni ko tayru yalla andi la ci paru sayidina limam sayidina limam nak moy yof gep layen gi nga usai nulai yof jeex tairu lo man ci teraanga nga nanga ko defal ñep bu ko yamale ci layen rek Serigne Ousseynou lay lol la denkon tayru nak ni ko rek la lay denk tayru bu adina doxa doxa doxa doxa ba nga soppi ko mukk li ngay def ci lu baax demal ba teeri yàlla na ko yàlla dimbali yàlla na ko yàlla sàmm wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu lay Maxtaar wax ji rafet di continuer si protocole bi toujours parce que nag dañuy ragal timis jot fi xaw a lëndëm ñu accélérer tuuti protocole bi après animation bi dinañ ko def après si loolu dañuy jël kàddu gi Je remercie toujours M. Pape Diop représentant MINUF Group. mi ngi représentant Fita représenté fii Group, Sarr ñoom tout en bleu. donc nous ngi leen di remercier aussi en forte délégation Je remercie très rapidement notre camarade notre ami notre frère le responsable politique docteur Moustapha Ndir. Monsieur Ndir docteur Moustapha Ndir. dañuy jóg kàddu gi mu ñëw moom it sànni ci ay kàddu responsable politique ici à Yoff responsable politique Benno Bokk Yaakaar docteur Diouf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci merci merci. amu leen moroom jërë ngeen jëf salaamaaleykum waa Yoff maa ngi leen nuyu ku nekk sa ak sa sant di rafetlu seen bi encore une fois mention spéciale suñu jigéen yi ak commune bi jigéeni commune bi amu leen moroom toujours yéen a nga ñuy sagal fu ñu leen owee ngeen ñëw en masse yal na leen yàlla fay ñu ngi jeexal at 2017 at mi ñëw yàlla na dàq foofu at ñuy jeexal ni si yéen ah, maa ngi nuyu kilifay diine aada yi toog si tribune bi yëpp di beral nuyu sëriñ Diallaay mi fi représenté famille yu Layen gépp teg si Serigne Mamor ndombu tànk yi jaraaf yi ndey ji réew yi waa Faray Yoof jàmbur yi Yoof mag ñëpp maa ngi leen nuyu suñu mbokk yi fi ne di sumbaar yeeg waa kër Binta Ndiir yëpp maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur sa sant di leen jaajëfal waa Minif groupe ñu ngi leen nuyu di rafetlu seen engagement citoyen bi ngeen def nii di ñu yóbbu ci émergence li le président Macky Sall santaane état mënul défar ay emploi day indi conditions rek nit ñi dugg ci créer emploi lolu la Tahirou Sarr ak Munif Group def lolu mo waral ñu teew teewaayu sunna bi ñu teew ni tay ci création emploi la jëm wax nañ ne centre commercial bi de dernière génération ko gis maquette bi su hôtel bi di nga centre bo xamné machallah dina andi ay emploi am nay espace conviviaux am na leneen ak leneen yoo xam ne yi macha allah bu paree incha allah dans six mois comme ni que monsieur Pape Diop waxee waa Yoff dañ si gis seen bopp ak waa dinaa wax sax waa Dakar parce que ñenn ñi bu ñu bëggee feexlu ak yenn sorties yi dinañ ko fa mën a def sans aucun problème muy infrastructure boo xam ne bi dafa dugg directement dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent transformation de l'économie mën si bolé sax axe 2 bi parce que nit ñi dinañ ko jëriñoo inshallah muy la am solo li ma si gëna neex moy li mu ko tuddé cheikh Ousseynou lay mi nga xamné suma mbokk la en particulier ñu bokk maam tafsir Ndiaga Gueye ñi ko xam-xam nañ ko ñu xamul xamuñu muy lu ma neex parce que jeunes yi la fi mës a neewal jeunes yi la mës a àndal di len liggéeyal di len tété kon ku indi lo xam li da nga ci jël ay jeunes ñu si liggéey di lañ la ci jappalé de A à Z may nuyu particulièrement di féliciter suñu maire ministre Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yal na yàlla gën a jàppale gën a dugg sa bilan bu jotee di dañ ko def Ibrahima ngi koy wax de temps en temps mais les pôles de transformation xar kanu xar kanamu Yoff Yangisi, facilitation arrivée investisseur Yangisi, ngi New York askanu Yoff yaa budget c'est extrêmement social comme ni président le budget 2018 au Sénégal nous sommes dans le même siège que le président de la République si Papa job néna dans 6 mois inshallah allah dina paré yalla na ko yàlla sottal ak jàmm ba wa commune bi ak i mbokk waa MUNIF yëpp gis ci sen bop allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasul allez merci beaucoup docteur Ndir kaddu yi defe ne gàtt na amna solo. les non responsables yi nga xamé ni ñoo ngi jógee département Dakar ñew notre camarade MAMFAL, responsable face Colobane Geltape, Tapée mi ngi remercier jeunes particulièrement les jeunes qui sont déplacés qui sont mobilisés de remercier de remercier Souleymane et son groupe nous aussi une de animer di remercier tout le monde de remercier jeunes mais aussi d'accélérer accélérer tout direct la cadence pour jox Kadougi, notre camarade représentant Minif Group, représentant Taïrou le bienfaiteur représentant celui qui a choisi Ouest Foire pour implanter son centre commercial celui qui a choisi d'implanter un centre commercial de dernière génération en l'occurrence M. Taïroussard, donc nous, jox monsieur Pape Diop Pape Diop ñëwul fii Merci beaucoup. Merci beaucoup, Didier. Monsieur le ministre, maire de la commune de Yoff, messieurs les autorités coutumières et religieuses, monsieur le représentant de la famille de Seydina euh, El Haj Abdoulaye Tchaoulaye, messieurs les membres du conseil municipal de Yoff, Monsieur les notables de Yoff, mesdames, messieurs les collaborateurs de Minif Group, plein d'invités. Le chemin est long du projet à la chose. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Aujourd'hui est un grand jour important pour la commune de Yoff et nous sommes très heureux que cette cérémonie ait pu être organisée car nous allons pouvoir remercier tous ceux jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas ménagé leur effort pour la concrétisation de l'idée du centre commercial Shérif Ousseinoulaï. Monsieur le maire, c'est donc un honneur pour nous d'être à vos côtés pour poser la première pierre de cet édifice. Un honneur car nouant ce partenariat avec la commune d'Oyoff, vous permettrez à notre groupe de donner un sens tout particulier à l'idée que nous nous faisons du financement participatif au bénéfice des populations. Ce sens, c'est celui que l'on donne à notre République, la République des citoyens qui cherchent le progrès, la justice et la dignité, celle des valeureux militants qui défendent toutes les causes humaines et celle des entrepreneurs qui œuvrent pour l'émergence de notre cher Sénégal. Monsieur le maire, je perçois en toute la différence entre les valeurs que vous faites vivre et la réalité chaque jour ressentie de l'exclusion et de la discrimination. Ce n'est plus un Sénégal à deux vitesses que nous vivons, c'est celui d'un Sénégal qui se veut émergent. Monsieur le maire, ce projet commun que nous allons initier porte en lui tout le sens du partenariat public et en cela, nous nous sommes grés. Je ne m'attarderai pas sur les avantages d'une telle réussite. Beaucoup de choses ont été dites. Je m'attarderai surtout sur le choix du nom que nous avons donné à ce complexe, celui de Shérif Hussein un homme de Dieu, ardent défenseur de la jeunesse qui incarnait à la fois la chasse et la modernité. Assurément, le choix de donner son nom à cet édifice est hautement symbolique, mais permettra également de perpétuer les valeurs qu'il a si bien défendues durant son parcours sur terre. Shérif noulaï continuera de vivre éternellement dans nos cœurs. L'événement de ce jour permettra surtout d'influer un nouvel élément à la commune de Yoff par la réalisation de ce vœu longtemps exprimé par les populations de la commune à travers la construction de cet édifice. 1500 mètres carrés de surface environ. Huit showrooms, deux fast-food, un terrain accessible aménagé en restaurant et des aires de jeux de dernière génération avec toutes les commodités. Ce que je viens d'évoquer, ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des services à la population. C'est une réalisation pour l'avenir des habitants de Yoff tel que le conçoit le groupe MUNIF qui très bientôt verra le jour. C'est ici, par cet outil original, efficace et ambitieux, que nous agissons pour consolider le ciment social et les briques du tissu économique. Je m'attarderai enfin pour souligner une vision moderne, celle d'un homme, Taïro Seydoussar, pour ne pas le nommer, qui investit pour réamorcer le cycle économique là où les inégalités sont les plus fortes. Son ambition étant accompagner et non perfuser, rendre entreprenant et certainement indépendants, indépendant, investir pour permettre l'autonomie des acteurs partout sur le territoire. Tel est le credo de cet homme de bien qui œuvre dans la discrétion dans l'humilité pour le bien des populations de notre cher Sénégal. Être un homme, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Ceci est la ligne conductrice de Taïro Sédoussa. Aucune entreprise ne prospère sans l'impulsion d'un homme qui a pour vocation de la conduire. En cela, nous remercions Taïro pour la générosité de ses actes lui qui a démontré son appartenance totale et entière à la communauté laïenne qui est devenue sa communauté de cœur, sa communauté d'adoption. Puisse Dieu lui donner toujours la force et la foi nécessaires à la réalisation de ses projets. Mesdames, Messieurs, cette pierre est plus qu'un événement, c'est un symbole, le symbole de notre ambition, traduite en actions concrètes le symbole d'un partenariat fructueux avec la commune de Yoff, avec son maire, le ministre Abdoulaye Djoufsa, et avec tous ses habitants. Pour finir, monsieur le maire, soyez assurés de notre constance dans cet engagement à vos côtés pour que ce projet soit une belle réussite. Nous vous remercions aussi de tous les efforts que vous avez faits et que vous ferez pour que ce projet voit le jour. Certes, il y a encore beaucoup de travail, mais cette tâche est d'une telle noblesse que ce serait une erreur majeure de s'en écarter. Je vous remercie. léegi dama bëggoon a rapidement si wolof voilà nous sore euh, monsieur le maire si ngi si jërëjëf ci si bi si jàppale euh, sànq laaj nañ ma ñaata nit la ñuy embauché ñaata la ñuy dugal ci xaalis ban surface ban superficie mais yaakaar naa ni ñun liggéey moo nu tax a jóg te duñu ñu dugal parce que business la ñuy def duñu ñu dugal suñu xaalis ci loo xam ni euh, moom la ñuy gis fépp ci Sénégal moo tax ñu ñëw jël fii Yoff souf bo xamni buñ ko defé way Yoff neen ci gis sen bop évidemment liggéey dina am koku ñu ngi koy tek sa loxo euh, développement dina am yaakaar naa ni euh, concurrence mënul am comme sank ni moko déggé euh ñëpp dinañ ci gis sen bop waaye man li ma jaaxal fi mu nekk ni moy pour liggéey ak Tahirou sar jamono yi nekk ni dafa xaw metti parce que euh, lu ñu bëgg def légui bala ñuy eggalee mu nañ ko def Yoff man nag comprendre fu ma ma la bëgg tabax euh, population yi ñun ñu pour que euh, dans six mois wala dans sept mois nous dellu ci wat habitants pour def inauguration au centre commercial merci beaucoup monsieur le représentant de monsieur ben kàddu rek a ak police ndax dafa am tournoi bu am ci Dakar dox ci maire yeb ak police ak gendarmerie maire bu Yoff dañuy jé suba CFPT Sénégal Japon deuxième heure à partir de 17h suba lay doon suba à partir de 21h on vous donne rendez-vous là-bas place Ndiou. ñu def suñu ay réveillon andak monsieur le maire avec toute la jeunesse nous Yoff gépp ñu foo café clôture année en beauté ñu may signalé Inch'Allah, tout le monde tour Mame Ndiaré dina am mois de février Inch'Allah. le 5 février nous préparons ko ndax nous ñëpp Yoff la ñu dëkk merci beaucoup euh, kaddu jox c'est le maire c'est le ministre c'est le bâtisseur. mais balaay loolu dama naa ni Souleymane ak waa troupe ndaw Rabine waxal ak nit ñi ba pare ñu soog a wax. ayca. bu ñëw délivré santé sociale Boucher Abdoulaye Diouf Sarr ayca da nga bëgg micro. bismillahi rahmaani rahim maa ngi

maa ngi yëkki kàddu bu sell muy euh, kàddu nuyoo kàddu ziar di ko nuyu di ziar suñu baay Abdoulaye Thiaw Laye khalife général des di jël euh, nuyoo bi di ko teg ci loxo doomam yu sell yi fi teew ngeen euh, joxal ma ko di nuyu kilifa yoof yépp tey yoof teew na kilifa aada yépp ak kilifa diine yi fi teew yépp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu samay euh, yaay ak samay protectrice yëpp a toog mu yaay Penda Diène ak euh, Binta Ndiir ak ñi ngeen àndal ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu sama mag sama le docteur Moustapha Ndir wax na wax ju am solo l'honorable député Moussa Sane, nek Grand Yoff ñew tew mom moi moy suppléant demul assemblée nationale

Lolu, yene nit rek motax nga koy defal lolu. bon pap bo demé waxal ma sama frère Tayru nga ne ko yene yene baha bi bu baakha baax dana delu si si projet bi tout à l'heure di wax né projet bu am solo parce que centre commercial bi ñu taxawal tay ci west Foire ici à moy nek dans le département centre bi fi peu jëmm centre bi fi gën taxaw promoteur bi dana dellu si si fan yu néew si détail du projet bi mais li ñu mën a wax déjà mooy que ne bu paree d'un employé plus de cent jeunes yoo xamante ñom ñoom ñëpp yoof la ñuy dëkk si bir projet bi buñ koy réaliser ouvrier yi fay liggéey yëpp incha day nekk jeunesse Yoff lañ fay utiliser loolu nag ku ko defal sa dëkk war nga ko remercier war nga ko gërëm donc mon ami cher pap Diop boo demee nga ne tayru maa ngi koy remercier waa Yoff a ngi koy remercier wax dëgg yàlla li mu ñu defal mënoon na dem yóbbu ko feneen mais comme ni nga ko waxee léegi loo wax rek moom Yoff la si njëkk et il fait tout ce qu'il fait avec énormément de discrétion. bon acteur bu am solo la ci dëkk bi man day pas ci dara parce que ce def ni ñu ñu ko bëgg seen dëkk mom mo indil mako fi à Yoff Yoff bu mag la Yoff dëkk bu mag la Yoff moy de moo tax bu ñu ma jëlee man mii ñu dénk ma seen ab dëkk ne ma man maay seen maire li ma war mooy ma leen di jaamu ba géej te incha allah du ma si jog saa yu ma xëyee rek maa ngi jéem a xool lan laa war a mën a def pour que yoof Yoff bañ am benn rëccu si lañu ñu ma fal ma nekk seen maire. bon de kilifa yoof bi ngeen may fal waxoon ngeen ne ma yoof amul quai de pêche te ñu ngi fiy indi jën yu bëri mooy dëkk bi ëpp lu muy indi jën ci tonage ci région wu yëpp yi nekk ci Sénégal te amul woon ouvrage boobu ñu déy ko suñu président son excellence le président Macky Sall parce que nag lu ñuy njaag moom mooy njaag ñu dégg ko ko mu ne bu dee yoof moom nañ fa def rapidement un quai de pêche mooy quai de bi ñu jëkk a taxawal ci magistère wu son excellence le présent Macky Sall mi ngi fii si yoof ñoom laay bare si ñoom jabel ñu ngi si incha allah fan yu néew di ngeen gis activité bu am solo foofu Nous avons une jeunesse Yoff amuñu stade le président Macky Sall ne ah de yof Yoff nañu gaaw stade actuellement à part stade de l'amitié le stade Demba Diop stade bii nekk Yoff ñu koy finir stade bi am solo fils, département de Dakar bon nuit, ñu ngi son excellence le président Macky Sall nous sommes Promoville Nous ne bu ngeen koy démarrer dem Foire Ayof ngeen démarrer ko fa loolu fédération sénégalaise de football De traverser Ouest Foire il faut le viser rond-point bi bon ñu remercier son excellence le président Macky Sall Ouest Foire aussi nous avons nañu lancer le programme de restructuration parce que xam nañ le Foire Nous avons ko da organisation des amulay infrastructure Nous avons lancé avec le ministère de mon frère Diène Farba la restructuration de West Foire acteurs qui fait nous ay de yu restructuration démarré les acteurs de la pêche mu jël képp koo xamante ne da nga bëgg moteuru gaal doon jar un million trois cent mille mu ne la boo joxee trois cent mille ma joxe la un million nga am moteuru gaal tey kenn jooyatul moteuru gaal fii si tefes gi ñun waa commune bi ñu dellu si ne lépp luy mbaaru géej nekk si tefes gi dana ñëw jàppale leen ba defaraat mbaar yi ba feexlu fa gën a yomb gën a neex boo demee tey au niveau la plage di nga gis mbaaru guerre yi moderniser nañ leen ñu ne fële à Nord Foire li may ndax wax bu ma ko waxee nag li maam baaba dana kontaan dans les mois qui viennent danañ fa samp le post de santé de Nord Foire Khamene Tene, c'est déjà arrêté semaine prochaine dans dem identification site Nous ñu appel d'offres pour le poste de santé au niveau de Nord Foire Nous sommes des na barke Dembo. la sommes des ñaar buñ vous leen joxee terrain ñu indi rapidement parce que tout est bouclé mooy la caserne de sapeurs-pompiers et la gendarmerie de Yoff en plus de la gendarmerie de La caserne sapeur pompier bi ak gendarmerie bi am na lu xama xel jox mais il faut ma waxtaan si ak la coutume de Yoff xool ndax foofu jekk mais il y a foo xamante l'opportunité warul bàyyi opportunité pour romb Nous nañu rapidement dès 2018 commencé les travaux de la caserne de sapeurs-pompiers la gendarmerie de Yoff nous ne bu ñu continuer mais guddi na mais ku gis place Mamadou Diop bi vous ne bu paree dana le lycée de Yoff. L'entrepreneur a démarré son implantation. Yakana y dana bokk ce lycée yi refait aussi dans le département de Dakar saltige y a wax sànq aéroport bi dem na côté mais il bi mi ngi fils Yoff bon au plan économique ba légui lepp ngi fi d'ailleurs aéroport pour Terme Nord ñuy remercier encore son excellence le président Macky Sall ba mu né armée bi jël len aéroport bi sécuriser ko ko monsieur le président C'est bir aéroport bi amna fa poste de santé bu wa Terme Nord doon je bëgg nga jox continuer mu ne ma poste de santé pour que toujours l'aéroport aéroport fayou. aussi c'est parce que les femmes viennent de suñu localité may remercier pour cela son excellence le président Macky Sall donc poste de santé boobu fa nekkoon waa Asecna moomoon ko ak aéroport du Sénégal Inch'Allah, nous avons ko organiser ce ko dans le district waa Terme Nord Biagi Biagui ak ña fa dëkk bañate ñëw ba fii parce que poste de santé bobu inshallah dañ ko utiliser mu nek un patrimoine de notre commune. biñu défé defee loolu nak dafa feeñ ci activité économique gu dëkk bi jël commune bi le budget était à quelque trois et quelques millions Il y a 400 millions ñu daw at yokk ko yokk bi nek nek yokk bu réaliste parce que dama ne gars yi budget irréaliste bu leen ko def lépp lu ngeen teg rek na nekk loo xamante da ngeen dem mën ko recouvrer mu nekk une réalité nga dugal ko première année ñu réaliser effectivement beaucoup de choses avec le budget may tëb ñeenti at yi de 300 millions à 1 milliard 800 millions. Le travail était énorme. Dembe Barke Demba, nous voté le budget de Yoff à l'unanimité des conseillers à 1 milliard 800 millions de francs. loolu d'ailleurs, économie bi marché day plan Sénégal émergent mi

loolu nag mooy mandargal la santé économique d'un pays te am Yoff Grand yof, partout dans le Sénégal bon le président Macky Sall Sénégal le président Macky Sall wax que nous budget 300 millions il a ko 1 milliard 800 le fait que l'économie Sénégal a un taux de croissance de 2,7 Il ko 7 pour cent de la Non, nous le fait dem ci Boydem Sibir, fenn tali Dogis, fenn piste de production Légui, boo Sibir, ci dans le Sénégal tey

Mes générations ils ne savent pas nous savoir parce que le Sénégal va produire la totalité de son riz très bientôt. 5 000 tonnes de production. on est presque à plus de 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, en Chine, du Sénégal, on est à 1 million 400 000 tonnes de production d'arachide. Fait qu'on à des niveaux qui faibles li ñu waxoon mooy que ne semence amatul si réew mi ba ñuy réew mi en 2012 actuellement on est autosuffisant en semences, mais des semences yoo xamante c'est des semences certifiées Ben université moo fi amon, colon yu tabaxoon ko mais tey la carte universitaire beaucoup koy Sénégal nekk na carte universitaire bu mucc ayib Sénégal dafa problème mu énergie ñaari fan yu nekk de yëpp fay mu kuy kamaj mais tey on est excédentaire en matière d'énergie. mais duñ def énergie si ben bor rek dañuy def sax ay tolu courant cest à dire courant bo xamantene si soleil bi lay jógee bon deuk li ñu def si réew mi bari na lol ku dem jam ñaajoo la création d'une nouvelle ville est en route alors que dëkk yu bari li leen jafé moy créer une ville nouvelle nous, on a réussi à créer une ville nouvelle et bientôt Diamniadio sera effectivement une ville extrêmement moderne. Bon, maintenant, honorer le Sénégal, mais honorer l'Afrique. mané euh, un appel on ne change pas une équipe qui gagne Bon amen. lu pour di wut D'un côté, koy téye bu baax dugal ko sa poche boo amee président bon xamante ne intérêt réew mi rek moo ko tax a ba ñun effectivement dans l'action politique la rupture signifie la patrie avant le parti du dawal ba ba Sénégal m'a transformé de manière extraordinaire tay nak liñu war moy ñu bu baax le fichier des bénéficiaires de bourse de sécurité familiale à Yoff vous allez voir qu'il y a plus de 7000 qui émergent c'est bourse bobu fi ci bir yof ño xamantene nous dañuy ñew jox leen lu ñu seen ni mu ko Yoff non la ko fait dans les 557 communes de ce pays là bon nañu taxaw ko lu bourse de sécurité amna couverture maladie universelle amna carte d'égalité des chances amna pour handicapés et ñenen mu ne nag ren pour la jeunesse mu créer effectivement la délégation à l'entrepreneuriat rapide la délégation à l'entrepreneuriat rapide moy 30 milliards de francs CFA yu mu def délégation Bobu pour que mu le ko dugal ko ci nous Vous voyez donc euh, le Sénégal est bien en route vers l'émergence aller en route vers l'émergence mooy nga def loo xamante benn dëkk bu nekk Afrique defagu ko ci juróomi inflation mooy bouger prix du il n'y a que le président Macky Sall pour réussir cette promesse l'inflation est maîtrisée au Sénégal le panier de la ménagère n'est plus un panier dans une fonction sinusoïdale le panier de la ménagère au Sénégal ce n'est plus une fonction sinusoïdale ni d'ailleurs une fonction affine c'est une fonction du type y égale a, qui est comme ça, qui ne bouge pas. donc euh, dénk ngeen seenam réew ku ko mën a téye dénk ngeen seenam reu, ku ko xam dénk ngeen seenam réew ku bëgg donc je vous leen di en 2019 mille dix-neuf au premier tour Je vous leen